nuyu bu baax a baax a baax ñu jot leen nuyoo bi ca kilifa ga fa tabarakallahu gis nañu yitte ji bu baax a baax xam nañ ne yitte ju kawe la ndax ni mu ko yitteele ba tax mu tànn njabootam gu baax gi yebal leen fii muy tànk yu yu diis di tànk yoo xam ne yu baax rekk ko tax a jóg ndax xam nañ ne eh, jéego yooyu ñu ngi jëm rekk ci eh, gën a dëgëral diine jóge rekk ci fonk diine ndax eh, ni mu ko defee tànn njabootam bu baax gi jóge ca Medina Baye ñoom si fi ci Touba lépp ngir dundal diine rekk la xam na loolu bu baax a baax a baax ba tax na indil eh, nañu cant gu rëy rëy rëy indil nañu soññ bu rëy rëy rëy ci nu gën a nekk ci sunu wartiif te nekk ci sunu wartiif jaamu yàlla rekk moo ci jiitu lu ca dolliku muy muy defar bokk kon nag loolu soññ nañu ci yaar yëpp soññ nañu ci diine soññ nañu it ci defar gu bokk ndax ndokk bi nga xamee ne defaru bokk yu baax yi yi dul farata yëpp defarul bokk moo ci jiitu te lii dundal diine rekk la ak defarul bokk xam na loolu bu baax a baax a baax a baax kon loolu soññ nañu bu baax a baax a baax kon amuñu fi daal loo xam ne moom lañ ciy wax loolu ak cant rek cant gu rëy rëy gis nañ jëf ji bu baax a baax jéego yu sell yi nga xam ne suñ suñ suñ mbokk yu baax yi jiw ngeen ko ba fii te lépp di lu baax rekk muy dundal diine ak defar bokk loolu yëg nañ ko bu baax a baax sunu xol sedd na ci sunu xel gën na ci daal sunu yaakaar it gën na ci yokk lépp rek nu fas yéene ko delloo ci euh, gën a takku bu baax a baax gën a dëgër bu baax a baax a baax euh, ci rekk dundal diine ak gën a sàmm wëllëre wi wëllëre mbëllëru yàlla rek la kon nag noo ngi koy fas yéene noo euh, jataay bii euh, noo ngi ciy fas yéene gën a euh, fàttali bu baax li nga xam ne moo dox suñu diggante gën a gën a dëgëral bu baax a baax wala wu rëy wu bi nga xam ne moo tax suñu diggante fas yéene suñu dund suñ suñ suñu dund yëpp yéene ko gën a sàmm euh, gën leen ci gàttandu bu baax fas yéene koo ànd ak yéen sax dàkk rek sàmm diine dundal diine sax euh, dàkk ci liggéey lislaam loolu rek mooy moo nu fi bàyyi ndax moom rek lañ fi fekk kon loolu xam na ne moo nu fi bàyyi ñoo ngi sant bu baax nag ci yaakaar ji nga xam ne sëriñ ba am na ko ci nun ba yebal leen ngeen jéego jéego yi ngeen jéego ba agsi fii ak seen njëtaay bu rafet bi loolu jooju yaakaar euh, waaw dañ koy soññi suñ bopp rek gën ko sante suñ boroom bu baax a baax a baax gën a ko sant moom euh, Cheikh Mahamadou Hami Mahi noo koy delloo njukkal ko cant-cant gu rëy rëy yu gën a tàllal loxo parce ni gën a ànd ak moom lépp ci nekk ci suñu wartiif muy liggéey lislaam na nu ko jottil euh, ziyaare sunu cant ak sunu ngërëm ak mu xam ne euh, gën nañu soññ nañu bu baax ci li nu war a nekk noo ngi gën a di ko gën a xamal ne ko rek eh, noo ngi gën a feddali sunu laxasaay eh, fas yéene fas yéene gën a ànd ak moom lépp ci incha allah sax dàkk ci liggéey lislaam loolu jotaay bi ak jéego yi ak kilifa gëm jóge ak seen jotaay bi rëy na ci lu rëy rëy boo xam ne eh, amuñu ci le xamuñu ci lenn lu ñuy mën a wax loolu mu mu mu di cant lépp ak cant la lépp ak cant rek la ak soññ suñu bopp jërë ngeen jëf jërëjëf leen ñu ko siyaareel bu baax a baax a baax kon soxla leen ñu am wax alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah